dikkati na moom premier ministre des industries minières yi la nenn fi mu ne le tey mooy yéene kaay naan maan ci ndaje bi ñu amaloon moom amadu Ba nga naan leen du ñu nangu nag ngeen nekk ci réew mi di rootee ci réew mi yóbbu seeni gox wala duufal seen i poche askan wa leen wër nekk ci ndóol bugaan gay dani ci leen fa yéene kaay naan kon moo Amadou Ba yaa wax lii kon xam nga ni yéen seen góor na maa gi ci boppam dañoo daal di laaj ci anam yu ñuy gérer ressources minières yi fii ci réewum Sénégal turbine yéene kaay naan man en tout cas bugaan gay dani yàgg na leen tuumaal ñoom nguur gi rawatina nag ci wàllu wàllu miin ni muy doxee ci réewum Sénégal ay gox-goxaan yoo xam ne ñi ngi ci biir réew mi miin ngi daal di koy wër ñu fay daal di jëlee meññeenteef yi nekk ci suuf gi waaye askan ba nga xam ne ñoo fay yeewoo nekk ci ndóol goo xam ne maar day taali amuñu lu ñu fajoo amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan daanaka kuran boo xam ne mën na leeral seeni mbir su weesoo miin yooyee amut bugaan gay dañu mel ni ku naan woon nguur gi acam yéen a xeeb seenuk askan yéen a ñàkk yërmande ci seenuk askan yéen ñàkk taxaw seenuk askan réew jël meññeefu Sénégal yi di ko tibb di duufal seeni gafa ak di yóbbu seeni réew booba ngeen di seetaan seenu askan ñuy tumranke ci seen gox yoo xam ne fa la ñuy jëlee miin yi nekk ci ndóol goo xam ni maar day taal yi Amadou Ba ci la témoin yéene kaay mel ni ku naan leen lii mooy jeex ci réew mi de seen gafa di duuf askan wi di ndool moo fi jeex bugaan gay dana ci turbine yéene kaay naan dama ne yéen nguur gi xoolaat leen seen bopp ba noppi laataa ngeen di wax industrie minière yi ndax bi nga xam ne collectivité yi héberger société minière dañ koy dugal koo détourné askan wi waxuma la askan wi de manière générale de waaye askan wa nga xam ne seen gox la miin ya nekk gisuñu ko yéen ngeen bàyyi ni nga xam ne ñoo exploité miin bi ñàkkal fu la dem bay toroxal gox ya nga xam ne fa lañ sosoo fa seen teraanga di jugee ñi nga xam ne ñoo fa dëkk moomee ko ca maam ñu leen di toroxal njiital gëm sa bopp naan leen yéen nguuru Sénégal yéen seetaan loolu yoor yor naan man géyee nga naan leen yéen ci boppam tey nguuru Sénégal yéen a nangu boobule échec 24 heures yéen a kaay naan man Ba kay moo jox dëgg njiital gëm sa bopp le mandat yéen kaay naan maan rax ci dolli moom gouvernement gu Sénégal daal di fekk si nañ njiital gëm sa bopp ci discours am l'évidence naan bugaana nga naan leen tey ki dugg bu nekkee ci ndool nguuru Sénégal lu njiit njaag yéen a cay njaag ndax ndool gi dëgg-dëgg yéen leen ci fekk si réew mi quotidien naan maan en tout cas miin ci réew mi day dox na junni téeméer ak ñeent fukk ak ñaari milliards lañ doon def chiffre d'affaires ci 2020 ci 2021 bii ñu toll ci junni juróomi téeméer ak juróom ñett ci milliards ci 2021 mu yokku nag ci téeméer boo jël ñaar fukk ak ñeent ci 2021 2021 bii rek ma ni la ñaari téeméer ak juróom benn ci milliards dugg na ci gaf ak nguur gi ci recette fiscale te lépp nag mi ngi bàyyee koo ci société minière yi ma ne 2023 bi kon lan moo dugg kon xam ngeen ni société minière yi ñi ngi daal di andi koppar gu bari ci réew mi waaye koppar googee askanu Sénégal daf koo jëfandikoowul rawatina nag gox yi nga xam ne fala la ni nekk fu ci mel ni Kédougou Kédougou boo fa demee gis ne ndóol goo xam ne maar day taali moom la askan wi di dund ndóol goo xam ne deesu ko andi génn ak laam-laamee ci ndóol leen mu neex dañ leen di tuñ tuñal lëkkaloo ceeg takk der yi di leen tegi ñaaw teef dem sax ba yenn saay bakkan yi di ci rot ci loo xam ne seeni suufa seeni suufu maama lépp feeñ ci ñoom tey ñu leen di tëntëñee xam ngeen ni ñaaw na l'enquête ko di jee naan maan la nara a ñaaw kay ba jéggi dayoo moom moo di nag bëgg-bëgg nguur gi nga xam ni feeñ na ci biir waa Bennoo Bokk Yaakaar nekkee dëgg-dëgg gaay yi ci boppam nag ñoo bëgg nguur lu ëpp fukk ci candidat daal di feeñ ci kangu majorité bi te fa mu feeñee moo nar a ñaaw ci Amadou Ba ndax diggante Jolof Njàmbur ak Fulaadu fa nga xam ne daanaka ñay woteel Benno Bokk Yaakaar foofee la ñu nekkee foofee nag ñoo daal di samp seeni mbër fa yàllaahu yéen kaay bi naan maan lii mbaadug làmbaatu kese ngir buur ci boppam gën laa jox bopp laas naan maan en tout cas yi door na moom Marème fay sàll nag daal di soobu ci parrainage googee fas yéene nag ngembul candidat borom kër ga muy Amadou Ba mi nga xam ne mooy candidat président Macky Sall yónni Thiam mi jiite soxna yi APR yi nekk ci diwaanu Tëngéej ci waa Grand Place naan Amadou Ba rek diggante Rufisque Nord ak Est Ouest ba Sangalkam Bambilor Djiloor ba ci Tiwaawoon Pël yónni ko ni ko yónni caam waxal yónni naan leen ñun waa Tëngéej rawatina soxna yi ma ni la candidat président Macky Sall Amadou Ba la ñu ngémbul fasal ko yéene ndam Bougane Gueye Dany ci yéenekaay bi naan leen ndam kay yéen balaa ngeen di wax ndam ci 2024 wax leen ndam ci li ñu nekk nii ndax yéen a ngi jébbale ay contrat ci miin gi kontra yoo xam ne jaarul yoon ay prête-nom ak leneen ak leneen am ci tey jii li nga xam ne ñun ñoo ko moom yow Amadou Ba nga jiite gouvernement bu Sénégal askanuk Sénégal gisu ci lenn ngeen yor yor-yor woo xam ne bon na ñaaw na salte na tey ji yow Amadou Ba buñ la joxee suñum réew fu nu jëm yor-yor naan ko tàkk te lii ma ni la moo nar a gàkkal candidature bu Amadou Ba bii 2014 ak tey Ousmane Sonko ma ngay wax nag ci loi des finances naan leen nañu leeral alal ji fu mu dugg Alioune Niane secrétaire général bu cour des comptes daloon ci kaw ministre économie ak finance ba woon di Amadou Ba tey jii tey jii ñuy wax ne moom Amadou ci boppam ay milliards lay doxantoo yéen kaay bi naan maan moo Amadou fu mu yi nag te mbaa bëgg dénk seen réew mu doxalal leen seen i alal gérer leen fu muy dugg lobs naan ci démb démb lu toll ci ñaari téeméer ak juróom benn ci candidat jël nañ fiche de parrainage ba le regard kaay naan ñenn ñi moom poo lañ ko jàppee ku jóg retiré fiche de parrainage bi mel ni ku jàppeewul mbir mi sérieux Walf Quotidien naan en tout cas am na ci candidat yoo xam ni seen xel rafet na wax ja rafet na waaye mënuñoo yeey kenn l'info yéene kaay naan maa ñey retiré parrainage day Thierno Bocoum du ca bokk ndax nag génnee na boppam ci élection yi du candidat l'observateur naan maan ak bëri ay ndëgg sërëx moom parrainage bi Anta Babacar Ngom ci yéene kaay bi naan leen bu leen ma jàppee fii à papa Mamadou Lamine Diallo ci tribune yéene kaay naan fi mbir yi toll nii politique gu ci boppam moo neex Sénégal moom mi ngi dox mel ni nit ku amul bët di tëñtëñi te làmbaatu sax ma ne la munu ko ndax amuti loxo ñu nekk ci réew moo xam ne amul gouvernement ka ko jiite mooy premier ministre bi fi mu ne ma ngay campagne yéene kaay bi naan maan moo tax fonction président de la république ci boppam ñu tuutal ko ñàkkal ko fayda ci réew mi ba ku jóg ne dama yóotu baatu réew mi l'info woon ca ñuy doxal réew mi doon wax nag ci entreprise minière yi nga xam ne daanaka askan wi gis ñuy seen bopp Amadou Ba premier ministre naan lii day jeex ci réew mi daanu saytuwaat contrat yi xoolaat bu baax a baax nu ci askan wi gisee seen bopp tribune yéene kaay naan man askanu raneeru yi léegi ñu gis seen bopp lu toll ci fukki milliards la ñu daal di débloqué ngir juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci dëkk dëkkaan daal di génn ci lëndëm gi ñu nekkee moom Baba Diallo directeur général bu ASER naan lu toll ci juróom fukki nit ci diwaanu Matam Kanel Raneeru Goudiri ba ci Bakel daañu gis ko fi ak 2025 ci leer goo xam ne daañ ci tàbbi jóge ci lëndëm gu metti gi ñu nekkoon laas naan man docteur Marie Xemes Ngom Ndiaye ma ngay wax ci jooyanti l'hôpital bi jafe-jafe yi nga xam ne am na ci ci accueil ba ba ci saytu maladie ñu daal di koy rafetal ci réew mi libération yéen kaay naan man xeexoo ba amoon ca jokkul ñu doon dem Barça wala Barzak la ba ñuy yekkale ay kandidaa ci geneen gaal borom gaal yooye jàppoon dañuy sàcc seenu moteur ñu daal di ñëw dal ci kaw gaal geneen gi loolee juróon ay coow fi mu am nay xale yoo xam ne réer nañ may ñu ci ndox bi